ndiiraan mi danañ ko topp moom c'est xamal na waaye fi toll xam nga li problème bi mooy tamit ñoom ñi nekk ci occidentaux yi xam nga nekk na ci réew yi développement yi te xeex bi ñu xeex ma macha allah wax dëgg yàlla taxaw am nañ ci taxawaay waaye war nañoo def tout nag pour jéem a copier foofu noonu wala ñu woo ñi nga xam ne dañuy copier ñu mën a ñëw ci réew yooyu ñoom it borom li expérience bi ñu am foofu noonu moom maanaam xam nga am réew boo fa nekkee da nga fa xam dara. la fa xam lay doxal réew ma fa réew ma toll loolu yëpp war nga ko mën di lancer euh, di ko jàllale ci say euh, live mu nekk loo xam ne am solo parce que am na yoo xam ne fi mu toll nii euh, li naan li jeex jeex na léegi mën nañoo jëmaat ci beneen côté mooy jéem a sauver Sénégal kenn ku nekk fa nga nekk la nga fa mën a am ci xam-xam nga indi ko sa réew boo ko defee jàppalee ko sa réew waaye nag xam nga am na ñoo xam tey jii dañ naan. Euh, ñi nekk bitim réew moom dañuy wax rek voilà dañuy ubbi seen i compte di def seen i live voilà daanaka bari na wax yu ñuy wax yoo xam wérul xam ñenn ci Sénégalais yi euh, dañuy wax loolu noonu pour pourquoi pas mënuñu leen euh, envoyé manda d'arrêt pour ñu mën a ñëw fii ci réew mi voilà ndax dañuy jaxase xeli nit ñi voilà ñenn ñi nag ni wala ñii daal jaxase wuñ xool xeli nit ñi voilà li ñu xam la ñuy wax ñenn ñi non demeewul noonu. parce que euh, parfois dañuy taal seen live di wax loo xam ne nii amuñu ci benn preuve xam loolu yëpp nekk na loo xam ne ni nit ñi ñoo bokkul yam kenn ko ci nekk la ngay gëm voilà waaye daal ñun gis nañ ne occidentaux yi moom avancé nañ avancé goo xam ne nii seen réew yi développé na développé goo xam ne nii boo nekkee ci benn réew moo xam dafa développé nga am compte boo xam ne nii euh, ay dix mille personnes ñoo lay topp war nga leen a mën a fexe ba orienté leen wala nga euh, xirtal leen wala nga wane li nga xam ne ni moo nekk ci réew moomu noonu pour ñu mën a copier ci réew moomu ñu mën a defar suñu réew mooy ci wàllu cet gi ku nekk xaw ku nekk Europe xam ne Europe moom set na set goo xam ne ni wala yeneen yi ci di voilà dëkkuwaay yi voilà nit ñi euh, euh, jëflante bi voilà séjour yi yooyu nekk na li nga xam ne war nañ war ngeen ko mën a dolli euh, Sénégal ndax ay sénégalais ngeen nekk ci réew waaye bu fekkee nag da ngeen a nekk ci benn waaw phase bi rek bëgg di continuer ci noonu mel ni loolu moom dafay continuer no parce que loolu dafa amoon ñu taxoon ñu doon ko xeex comme xeex nañ loolu te jàpp nañ ñii fi ñëw ni ñu ngi door a toog te gis nañ ni euh, yoon wi ñu jël wax dëgg yàlla yoon wu baax la ñu jàpp jàppale leen ci loolu ba keroog ñuy gis la neen voilà loolu nekk na nga xam ne nii moo ëpp solo waaye boo gisee nit ñi ñu ci bari naan ñi dañ leen a war a lancer mandat de rek ya caajoog yooyu noonu loolu mooy dafa am ni ñoo xam ne daanaka euh, bëgg nañ leen a jëlee foofu noonu pour ñu indi leen ci réew mi te wax dëgg yàlla kenn ko ci nekk fa nga nekk defa liggéey dafa am sa jàmm mooy sa sa réew ba kere ngay dellu si sa réew waaye daal lañ doon xeex mu wax dëgg fa yàlla comme xeex nañ ko euh, euh, euh, nañu jéem a xoolaan nag yeneen côté yi nga xam ne mën nañ mën mën nañ ko apporteel Sénégal surtout nag ni ñu nekk bitim réew wala parce que man gis naa ñoo xam ne wax dëgg yàlla réew ma ñuy ne dañuy wane wala dëkk bi rafetaay bi dañuy wane tamit dëkk bi noonu ñuy doxee wàllu économie lu ñu bare bare bari daal te du tee nit ñi dañ leen di topp di leen bàyyi xel bu baax a baax a baax du tee tamit li ñu war a wax ci réew mi dañ koy wax waaye day fekk loo xam dañ koy gëstu ba mu wér te leer euh, ñu teg ko ci taabal ji parce que tamit wax dëgg fa yàlla euh, réseaux sociaux moom xew na kenn ku nekk euh, xam nga yaay xool ni ngay amee say information waaye daal daanaka mën naa ne daal yu baree bari daal war nañ cee mën a nag taxaw bu baax pour jàppale suñu réew kon daal 94 Walf Sénégal lii lay indil